a jaaye baña dem sàcci waay yoon moo tax ñi jaay matu la la Dakar ne te ngi ni baña dem sàcci waay moo tax ñi jaay matu waaye la ni jaaye baña def lu dul yoon moo tax ñi jaay naan la nu jaaye bañ dem saa waaye waa Dakar TV mad jaa ngi ndaw ñi dañoo bëgg a liggéey amuñu liggéey moo tax ku nekk ngi dóor waar moo tax ñi jaay màdd waaye ah, waaw màdd daal la ñi jaaye ba ñu dem saa ci waaye moo tax ñi jaay màdd waaye waa Dakarnet TV màdd jaa ngi ne ba ñu def lu dul yoon moo tax ñi jaay màdd waaye ah, waaw bañ a dem saa ci waay moo tax ñi jaay matu waaye matu la ñuy jaay waaw waaw matu la ñuy jaay bañ a def lu dul yoon moo tax ñi jaay matu waaye ndaw ñi liggéey leen ndax liggéey moo war bañ a def lu dul yoon moo tax ñi jaay matu waaye yow filmekat bi moom mi ngi dóor waar bañ a dem saa ci waay moo tax ñi jaay matu waaye dawalkatu sareet bi moom mi day dóor waar bañ a dem saa ci waay moo tax ñi jaay matu waay lay lay la la liggéey naal moo wóor bañ def lu dul yoon moo tax ñi jaay madu liggéey liggéey liggéey liggéey waaw moo wóor wóor wóor ay artiste lañ man mi def naa téer dix ans ba pare damay woy simb damay woy ngénte damay woy ay mbapat lu ne dama koy woy mais ñàkkuñ jàppale ñu xam ne tamit toog di xaar temps la ba pare ñu yor kër looloo waral ñu chargé suñu saret di liggéey lu ñu am bu kër ga kii électricien bâtiment la defarkatu moto la kon moom mu ngi liggéeyam waaw mais y a pas de sous métier waaw ay waay mat dooy mat jànge mat mat la ni jaayow neex Dakar Net TV dañu lay way ndaale ay waay Dakar Dakar Net TV yow télé baa ngi yow Dakar moom télé bi sunu télé baa ngi nii yal na daal ay waay ñaman ñaman ñaman waa Dakar Net TV gërëm nañu leen daal